mbokk yi di rafetloon ak euh, télévision Futur Média benn waxtu jot na ñu ak seeg kon ci xibaaru euh, digg bëccëg gi euh, la ca gën a fës ñi nga xamante ni ñoom ñoo rëccoon fii ci rëbës juróom-benn la ñu tolloon juróom yi garde pénitentiaire jot nañu leen a tegaat loxo gannaaw ba ñu lëkkaloo ak police ñu des nag warum ki nga xamante ni moom mooy wuyoo ci turuk Mansour Diouf ci minu mel kon la ñu toll ñu xam le nag ne ci wàllu dansé mënut a présenté kon danger ngir askan wi tere teewut ñi ngi ci wër gi njort ni ci lu yàggul kon euh, dana ñu ko teg euh, loxo lu jëm nag ci mbir yi kon euh, semaine de fer juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci milliards chinois yi kon dugal nañu ko fa ñu yaakaar ne loolee dana suqaliwaat kër ga ak it ay xëy yoo xamante ni war nañu ko caa mën a séntu waxtu woowu lu jëm ci campagne mbayum gerte mi ña nga kon ci jafe-jafe fële ca Koldar foofee ñàkk financement tax na campagne bi bu ñu moytuwul du mujj ji téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn point de collecte la tegoon lu ca néew kon moom mooy dox euh, producteurs yi am ci kon ak ñàkkare waxtu wi yi euh, danañu amit gan ci biir xibaar yi daal di euh, jàngat lu jëm ci mbirum société civile bi rawatina ci wàllu financement ak coow li ci feeñ ak mbir yi Lamine Diack ma Ndiaye gay lay wuyoo suñu gan bokkoon kon ci PA yi monsieur gay ñu lay nuyu di rafetlu teewaay bi ci xibaaru digg bëccëg bi. maa ngi lay sant di la bi. ci kanam tuuti danañ dikk na ci waxtaan wi eh, njeextalu xibaar yi danañu indi it lu jëm ci rétro bi atum politique la ca gënoon a fës laata loolu it danañu suux xool gàmmuwaat gi ci diwaan bu demee ni eh, Ndiassane wala Medina Baye fu mu toll ponk yaa ngoog ni studio yaatal ko. mbokk yi dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs média police euh, mi ngi ci wër gi tolloon nañu ci juróom-benn ñu rëcc démb ca kaso bu euh, rëbës juróom yi teg nañu leen loxo mu des kon kenn euh, ca détenu ya rëcc Mansour Diouf lay wuyoo ba tey ji nag xamaguñu fan la féete waaye daal nee nañ du danger kon ci askan wi terewul nag bëgg nañ ko tegaat loxo ndax yoon dafa dogaloon mu des ci kaso bi ci wàllu woowu kon police ak garde pénitentiaire maire ñu ngi ci euh, lëkkaloo loolee xew nag démb ca rëbës moo tax ña fa ñëwoon ngir seet si seeni mbokk yombut woon euh, ca ñoom euh, lépp lu di wisit dañ ko mujj a tere lekk ya sax ñu sant leen ko ñu delloo ko ca kër ya Ibrahima Kane ma nga foo woon. buntu kaso bu rëbës lu ëpp ay ñaar fukki nit ñëwoon nag indil añ seeni ñoñ wante dugg ba dañ leen koo tere lu ko waral ñu ñuy xamal ne ay prisonniers ñoom ñoo rëcc fii nii ci kaso bu rëbës. lañu ñëw fii toog ranga ranga rang ba visite bi jot ñu commencé visite ba vers 11h si la am ñu yuuxu ñu ne am ñu rëcc bañ dawee xool nag am ñu rëcc daw génn. Euh, léegi pénitencier yi daw dàq ji leen. bi leen euh, dàq ñu jàpp ñaar bi ñu jàppee ñaar ñu jàpp leen dóor leen dóor leen ba ñuy bëgg dee ñu dugal leen. bi ñu leen dugalee ñu ne leen est-ce que visite bi dina continuer ñu ne waa dem leen dinañ leen wax ñu jékki ñu ne ñu génn leen ñu daal di génn bi ñu génnee ñu tasaare suñu permis ñu wër a wër ba sonn man sama permis dafa réer moo dem utaat beneen permis ñu ñëw ñun laajaat leen ba xam visite dina am ñu ne visite du am lekk du am dara du am dem leen. xibaar gi ba fi ñu toll nii nag autorité pénitentiaire yi dëggalaguñ ko wante ci buntu prison bi wala sax ci quartier bu Rebeuss lu ni mel ñu di ko waxtaanee ña ñëwoon nag indi seen i añ daal di naqarlu lu ni mel. ñoom ñoo xool ba ñu évadé évadé kon nit ñi ñëw war a indi añ pour seen nit yi fi nekk ñu bañ na kenn dugal añ di dàq nit ñi. loolu pour lan la ñi daw sax ñoo yey daw parce ñoo tëdd ba muuti kenn àttewu leen. ñëw nañu mais bu ñu bàyyiwul ñu dugg sax ñu dugal añi parce que ay doomu aadama lañ dañuy noyyi dañuy lekk. ñett jàpp ñeenti prisonnier bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu fi fekk ne nañu dañoo rëcc ci prison bi tey ci suba si waaye fi ñu toll nii nag ñaar ci ñi ñu njort ne dañoo rëccoon tegaat nañ leen loxo. ci wàll woowu la daal di eh, kon eh, teg wax ci leneen chemin de fer Dakar Kidira chinois yi dugal nañu ci ay koppar ngir yoon woowee taxawaat toll na ci juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay milliards loole nag daal ñu rafetlu ko ñoom ña ca yëngu Cheikh Diop bu synthèse eh, gis ni lëkkaloo googu diggante doomi Chine ak Sénégal loole sax mënees nañ cee njort ñu ci am xëy ay emploi supplémentaire yu feeñ vice président Sutraay moom it ca daal di xam le ni collaboration boobu dana tax marchandise yu bari sax yu tagoon fii ci porub Ndakaaru ñu mën koo jaarale euh, ci euh, raay bi mu dem wutali seen i ma Cheikh Tidiane Thion Mademba Camara ak Cheikh Diop daal di nekk ñaari syndicaliste yoo xam ne lii di relance su Transrail nekk loo xam ne dafa leen soxal dem sax ba yitteel leen lool la ñoom li ñu bëgg moom mooy société bi di Transrail mel ni mu meloon na ci jamono yi nag am na benn société boo xam ne mu ngi cosaanoo fële ci réewum Chine nee na fas na si yéene dugal lu toll ci juróom-ñaar téeméeri milliards ak lu topp ngir daal yoon bi dox Dakar ak Kidira daal di mel ni melaatoon. avantage bi mooy euh, société boo xam ne da nga benn train nga daan def par jour matul jëriñul dara banque dañ lay lebal sax loolu fàtte naa ko wax ci français pour nga mën a fay say travailleurs. combat boobu yëpp package la package la combat bu nga xam ne synthèse force du ma daf ko porté ay at a léegi nag su nguur gi décidé moderniser raay bi def ci xaalis bu toll noonu ak ay partenaires du ñu mën lu dul rafetlu ko. ci collaboration bu bees boobu ba tey tamit lu toll ci ñaari junni ci ay emploi dañ ko ci créé ci ak ñeenti at lu ñu mel kii di Cheikh Diop moom di ko rafetlu teewul ba tey moom nag mu ngi artu léegi nag yàlla dogal na loolu am ci biir combat boobu daj nañ ci lu nekk suñu camarade am nañ ay représailles ñi affecté nañ leen ñi seeni salaire daanaka ñu bëri xaaj nañ ko daj nañ lu nekk société yi nga xam ne fajootuñu woon entreprise bi yu bëri gaañ dañ ko muñoon ndax fi entreprise bi toll woon ñu jàpp ne nag bu fekkee relance na am nañ bàyyi xel ci passif social boobu nga xam ne liggéeykat yi dañ ko porté woon durant le combat. Mademba kamara moom gis na projet bu am solo la ndax dina tax. marchandise yi nga xam dañ doon tàggatam bi fële ca port ñu daal di leen di mën di yóbbu te du am benn jafeñ-jafeñ dañu am loo xam ne mi ngi ci biir port bi di doon loo xam ne lu war a jëm biir Mali nekk en souffrance au niveau du port parce que dañoo amul logistique bu ko yóbbu ndax bi lu mat fukk ak machine ak ñett tey ñaari machine ak ñetti machine ñooy daw kooku mënta def dakaar ba ma ko plus de mille deux cent yi quelques kilomètres. ngir daal di li nga xam ne moom mooy Transrail ñii di bailleurs yi ñoom daal di dindi ab pàcc bu am solo boo xam ne dañ ko jagleel lépp lu jëm ci xarala yu bees yi ci li nu mel sax lu toll ci juróom fukki ci ay nit ñoom daañu bénéficier ab formation. état bi nag dafa war xoolaat euh, politique privatisation kon euh, multinationale yu bari Cheikh Diop moom moo gisee euh, nu ni mel moom nag jàpp na ni it lu jëm ci yoonu ko Tamba Kédougou loole sax jàpp Tamba Ziguinchor loolee demande sociale la ba tax na jot na kon ñu taxawal leen wax na ci ligne yu bari yoo xamante ni njort nañu ko war ko defaat ci secteur raay bi mu daal di ci yàddu ci suñu micro reporter caméra Younous Diatta jóge Tamba dem Kédougou baax na parce que Kédougou euh, site minier la bu bu am solo waaye it nañu fàttaliku ne dakaar Ziguinchor ligne la bu am solo boo am enjeu parce que li ñuy daj ci transgambienne bi ak euh, euh, noor bi ak sud du Sénégal ni ñuy amee ay jafe-jafe circulation yaakaar naa bu tëralee ligne ferroviaire boobu lu ci bëri dina régler lu ci bëri ci wàllu économie bi ci marchandise yu war a transporter ci fruits yu war a jóge Casamance ak ci transport beeg déplacement population yi dina ko gën a yombal te dina. moom la ñuy xaar moo di SAR Air Sénégal International secteur u tourisme secteur u peche yooyu nga xam ne ay entreprises yu nekk en difficulté ñu ngi ci te CNTS FC porté woon aussi komba bi. ñu ngi xaar décision yi ñu ci jël ak déclaration yi ñu ci jël muy lu ñu rafetlu ñu gaaw matérialiser ko. gannaaw raay bi ñu yër kon lu jëm campagne commercialisation gerte gi jàpp nañu ne ca Kolda ci ay jafe-jafe kon la ñu nekk téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ci euh, point de collecte la ñu taxawaloon waaye lu ca néew ñoom ñoo cay dox ay coppar yu manqué moom moo indi situation boobu teewut ña ngay wéy di sàkku ci producteurs yi ñu jaay seen i graines suneor euh, ngir nag euh, lu jëm ci wàllu ko jiw ëllëg ñu bañ ca am jafe-jafe Abdoulaye Diallo la ñu fay fekk ji ci leeral la ñu door ko depuis le 16 novembre bi weesu campagne yu njaayum gerte gi doxul ni mu waree ci diwaanu Kolda ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn seko yi ñu fi waroon a tijji daanaka ñi si dox taxu ko bari noonu. ubbi na mais mais puisque état moo yore liggéey bi. comme njël si njëlbeen bi. Sonacos bu mu doon dund état bi moo jox Sonacos xaalis mooy dindi xaalis bi jox ko suñu woo jox ko banque yi tel que la CNC. chinois yi ñoom it ñoo ngi ca jawbe fu ñuy jëndee gerte gi ñeenti fukk ak ñeenti dërëm la ñuy jëndee kilo gerte bi. ñun de gis nañu lu ñuy wax ay chinois ñëw nañu fii di jënd gerte mais dama tiit dama ragal parce que la seet. ma ne lay jël parce que gerte yi yéen yëpp teg ci oto bi lu si jëm yëpp moo koy def ñu ne fii dañ koy jënd ñeent fukk ak ak ñetti dërëm or que boo yóbbee sa gerte gi chinois opérateur ñu ngi am différence bi 14 francs 50 boo delee 14 francs 50 ak 15 euh, francs bi différence bi muy muy 0 francs nañuy gëstu bu baax nañuy gëstu bu baax balaa ñu dem di jaay gerte gi chinois yi ñu bañ am jiw surtout jiw bi nañu jaay gerte gi si ci suñu point collecte collecte yóbbu gerte gi usine bi suñu njaboot yi suñu mbokk yi ñëpp dund si suñu usine bi di liggéey réew mi tamit mën a dund. campagne bi nu mu tëddee fii ci Kolda daa nuroog campagne bi nga xam ne dina gaaw a jeex ci biir fu la Fuladu pomme de terre bi moom ña cay yëngu fii ci Afrique saw jant ñoom nag ñi ngi woon daal ci visite de terrain ca boori euh, Ndar euh, loolee nag tax ñu daal di taxaw xoolit euh, commercialisation njaayum pomme de terre moomu fan la toll ci marché bi ñu ca bari gis ni daal nañu dem ba soble si kon am ci doole local bi pomme de terre bi it noonee kon la ñu ci war a taxawee commerçant waaye it consommateur ku ca ne joxe nga ci sa xalaat Ibou Diouf moom mu àndoon ak ñoom ca Bobeto journée. lujum yi bokk ci li askan wi gën di jëfandikoo loole di pompiteer ci loolu nag way jëfandikoo yi mën a tànn ci diggante pompiteer bu ñu bàyyee fii ak itam bi bàyyee ko biti réew. waa am na différence parce que différence bi mooy euh, population bi importé bi la ñuy consommé. waaw boo xoolee sax local bi bariwul fii ci marché bi. daan di gën a faral di jëfandikoo mooy importe bi mooy pompiteer France bi Hollande wala bu Maroc bi. ñun loolu moo tax ñu en plus te du question yombaay bi sax parce que tamit booy jaay tamit da seet lu client di gën a soxla rek boo xoolee fekkee da nga xool en terme de prix par exemple bi local bi lim la wax 6500 lañ koy lañ koy jaayee mais importé bi boo xoolee ñoo ngi koy euh, jaayee ay 8000 et quelque waaw boo xoolee nag moom bon. en terme de prix quoi bële moom moo ëpp mais nag jigéen ñi bii la ñuy ëpp bi ñuy jënd xaw ma ci qualité bi la xaw ma wala importé bi moom lañuy ñuy gën a jënd donte ñu ëpp ci soxna yi dañu tàmm jënd pompiteer bi jóge fële ci biti réew mu am ci ñoom nag ñu gis ne suñu pompiteer moom lu neex la ah man de bu ñu béy fi moom a gënal moom man boobu amee dama jënd bee bu ñu béy fi moo ñu gënal pompiteer bi pompiteer bi waaw bu ñu béy fi mhm. moo gën a neex moo gën a kii daal boo ko saafee ni da am lu bari day woow day kii dafa neex daal. yenn saa yi day manqué bu manqué nag ñàkk pexe rek ñu dem ci beneen bi ñu jënd ko. jëfandikoo lu ñuy béy bokk na ci liy dooleel suñu mbay loolee ngir mu antu foofu ñëpp mën ci dugal seen loxo. góor góorgóorlu rek. waa di jënd di béy comme ça suñu réew mi gën a kii daal. waaw mu bañ a manqué toujours. bu manqué wul moom yu bari moom la ñuy jënd. ñu sañoon defal defal suñu réew ñu li ko ñu li ko ñu moo ñu gën a amal njëriñ daal ñun yëpp. gannaaw ba ñu bayee ba noppi campagne commercialisation bi moom léegi mu door kilifa yi yor wallu njaayu pompiteer fii ci Sénégal di def ay jéego ngir campagne boobee gën a mucc ayib maanaam béykat yi mën a jaay seen pompiteer ni mu waree. lu jëm ci wàllu wàllug wergu yaram ak euh, transmission mère enfant wàllante doomu jàngoro sida bi ci diggante euh, yaay ak doom euh, téeméer boo jël ñeenti tombal ñett la woon atum 2010 loole nag wàññiku na léegi ñu ngi ci téeméer boo jël ñett yu tombal benn mu di kon wàññiku gu ñu rafetlu ñoom ñi yëngu ci toppatoo malade yi loolee gannaaw benn l'enquête bu ñu def ci wàllu élimination ci fukk ak ñeenti région yu Sénégal ay stratégie nag jàpp nañ ni daal bu ñu ko tëralee mën nañoo dem sax ba àgg euh, ci kon euh, zéro euh, infection benn wàllante kon du caam xamante ni moom mooy chef division sida docteur Abdoulaye Sidibé Wade am na kon yenn ci leeral yoo xamante ni dénk na ko kii di Fatou Kiné Dème résultat yi baax na mais duñ ci yam dañuy continuer effort bi pour que sida bi jóge ci doom yi xale yi xam ne dañuy juddu ci seen yaay loolu daal lañu bëgg mooy tax ñu bi mooy ñu def ko xam ne jigéen bu bu bu bu ëmb bu nekk mu def tout pour def test VIH sida parce que loolu test bi am na fépp am na ci région yëpp am na ci poste de santé yëpp li des mooy bu fekkee ni am na jàngoro sida bi docteurs yi dinañu def li ñu war a def mooy traitement immédiat et loolu buñ ko defee femme bi topp traitement bi doom bi incha allah day nekk loo xam ne doom bi du am infection ak VIH. ca labo ba ñuy sayto nag lu jëm ci euh, virus euh, boobee sax fa la ñu gisee woon VIH 2 mu di laboratoire bactériologie virologie ba nekkee ca biir hôpital Aristide Le Dantec moom nag certifié nañu ko ISO afetlu ko nag euh, liggéeyam loolee karité ak xarañ ngoo xamante ni noonu la ñuy doxalee moom moo ko mayee démb ñu amaloon femme ndaje visite guidée ca biir boobee labo Fatou Kiné dem moo ñu fa suuxal. ay analyse yu wóor ngir ay résultats yu dëggu ñeel saytu jàngoroy sida fii ci unité bi bokk ci laboratoire bu bactériologie virologie bu hôpital Le Dantec seet gi dañu ko teg ci yoon ngir njuumte bañ a am. li ñuy njëkk a def mooy xool ndax li li ñu bind ci tube prélèvement bi méngoo nag li nekk ci kayit bi bi ko accompagner ndax bu nekkee méngoowul mun na indi ay erreur nga ne patient bi moo. Euh, moo infecté te fekk ne du moom. résultat yu dëppoowul ak yoon ñu mën koo moytu bu baax loolee tax na sax ba prélèvement bi bu ñu ca noppee dañu koy jàllale ci zone technique yu laboratoire bi foofee la saytu gi gën a ñoŋee. bu nekkee gis nañ ni maanaam nit ki def nañ ko sous traitement traitement mel na ni doxatul mun nañ tamit ci këyit gi toujours prélèvement boobu ñu amee mun nañ ci saytu ndax. est que virus bi dafa soppeeku loolu la ñuy wax mutation est-ce que virus bi dafa am ay mandarga yu bees yi tax ni traitement bi ñu ko administré doxatul. lu jëm ci wàllu quarité bi ba tey am na ab support bu ñuy jëfandikoo loolee dafay gën a gaawal liggéey bi bu ñu sukkandikoo ci prélèvement yi nga xamante ne nii defewuñu ko ci Dakar. dañuy saytu xale yi nga xamante ne dañoo juddu ci nga xamante ne seen yaay dafa euh, infecté ci VIH xale yooyu noonu. mun nañ def seen prélèvement ci ak gox bu ñu mënta nekk ci Sénégal tey ñu utiliser li ñuy wax papier buvard mooy support bi benn kayit la nga xamante ne dañ cay dañuy piqué xale bi ci ci ci baaraamam jël deret di def ci tuuti deret bu tuuti boobu nekk ci kayit bi bu fi xasee ba yegg si mun nañ ci xool ndax xale bi infecté nag VIH wala infecté wu. tey jii nag ni laboratoire bi di doxee tax na ba ñu ak accrédité ko mu bokk ci laboratoire yu gën a xarañ ci àdduna bi. fukki nag yi mu def ca boobee laboratoire euh, gannaaw loolu génne na ca ab euh, téere euh, ci gestion laboratoire biologie appliquée à l'infection à VIH ci Afrique nag la ko def maanaam gën na ko yaatal bu weesoo xëy na lay tukkee ci laboratoire boobu yër na ko ci yeneen réew moom professeur Souleymane Mboup génne kon boobee téere téere bi nag mu gën ko jagleel yi nga xamante ni ñoom ñoo di spécialiste yi waaye it étudiants yi ñoom ak docteur kon Euh, mu leen di may daal ñu gën a xam lu soxal ci jàngooray Sida euh, Amadou Makhtar mbaw moom nag wax na ci koppar yi daal Lamine Diack ni woon kon euh, joxe na ko kon ci société civile beeg lu nu mel moom nee na dëggal na ko jot na fukki kon dix mille euros toll ci juróom benn million ak xaaj loolee nag ngir daal jàppale assises nationales yi moo xamle ko ci RFM moom Amadou Makhtar mbaw di koppar yooyu ba mu ko jotee it da ko daal di jébbal euh, kii di Penda mbaw moom moo jox sax xaalis boobu waaye préciser na ni atum 2008 euh, la woon te boobee daal nee na scandale euh, Russie kon amagul woon ndax loole kon 2011 la mu doonoon contribution président Lamine Diack ci kon assise nationale yi dégg ngeen ko kon ci nasaraan waaye ñu am ci gan nag waxtaanee financement nga xamante ni moom moo di sax société civile bi ndax waral na coow li am ci ganit Madiaye Gaye membre euh, PAI la woon euh, monsieur Gaye ñu dellu nuyu la. maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi. Euh, ñoo suivre ndo dossier Lamine Diack bi ak ni mu tuddee kon yenn waaye politique yi waaye it société civile bi financement bu mu ni kon jàppale na ci wàllu assise yi ak lu ni mel ñu daan faral di dégg coow nag ci financement parti yeeg yu ni mel léegi mu mel ni dafa law ndax ñi yëngu bari na société bi tey jii it taxaw na yittewuy tey koppar fu muy jógee di coow li tamit. waaw am nga koppar moom il faut mu am fu mu fu mu jógee parti politique yi bu fekkoon dañ def comme li ñuy wax financement de partis politique comme yenn euh, réew yi ni ñu koy defee dañuy natt ku ne ñu jox la natt bi day fekk ne ñu xam parti yi nu ñu toll ak nu seen dimension toll parce que parti yëpp yamante wuñu donc bu ñuy leen di séddale il faut ñu ne parti bi am na tant de député wala am na représentativité mais Sénégal ni mu toll deux cent et quelques partis bu ñu sumbee financement des partis politiques dina indi problème or li am moo di parti politique yëpp am na ci ñoo xam ne ay dañu am yoo xam ne ñoo am di jox wala ki nga xam ne moom moom partie bi dañu naan parti diw donc kooku xaalis bi moo koy indi. fan la koy jëlee dafa jafe seet. parce que day indi xaalis joxe rek mais kenn du xam ndax moo ko joxe donc financement parti politique yi lu lu doy waar la lu ñu war a seetaat. pour que ñu yemale leen bu ñuy dem élection ñu yemale leen bu ñuy tànn ñu tànn leen te kii ëpp xaalis du gagné ndaxte moo ëpp xaalis mën na dem fenn fépp te ñi ci des mënuñu dem. Euh, waxtu woowu société civile bi tam gis nañ mouvement yi ñu ngi gën di bari ñoom tamit euh, soxla niñ ko waxee ay déplacement ñu ngi ci meeting ñu ngi ci ay rencontre euh, koppar yooyee yëpp tamit ñoom it ñu am fu ñu ko war a jëlee pour wéyal seen activité. voilà société civile bi comme ni ñu ko waxee dafa am lu ñu ci war a leeral. parce que société civile dafa vague képp ku dul yëngutu ci parti politique dañ naan société civile nga moo tax mouvement civil citoyen yi bari société civile bi ku jóg ne société civile la ñooñu tam fi ñuy jëlee seen xaalis moo di comme lii li Lamine def et loolu jafe na ñi parce que euh, Assises nationales yi cest di mbiru Sénégal yëpp la woon ñi ci joxe bari nañu def nañ benn liste boo xam ne ñii ñëpp dañuy joxe pour dimbale c'est-à-dire que assise nationale pour ñu taxaw euh, Bara Tall joxe na këram pour ñu kii ko sanctionné nañ ko ci euh, Lamine Diack joxe na ak ñeneen ak ñeneen joxe nañu loolu moo tax ki mais société civile na nga xam ne mouvement la kooku léegi comme parti politique parce que ñu ci bari dañu nekk mouvement citoyen ñu jékki ba yàgg ñu transformé wu daal di nekk parti politique. loolee sax am na benn moment maître Abdoulaye Wade ba mu fi nekkee jiiñ leen ko ne en fait ay politiciens ya lu yu làqatu euh, te bu ñu demee ba ci biir sax xëy na dañu dafay am yenn doxalin yoo xamante ni euh, daf koy jox dëgg ndax euh, dañuy daal di dem féeteeg nguur geeg yooyu ñu bari di ko naqarloo. waaw daal moo di transhumance bi tam ci ci loolu la jógee am na société mouvement citoyen yoo xam ne dañuy créer en fait benn nit la wala daal du ñu bari. mais comme seen euh, rajo yi ñoo di yokk seen tour mais en réalité tekkiwuñu lu bari bu ko defee nag nguur gi moom ku am coow daf lay jéem a xëcc indi la ci moom fekk doo ko indil dara mais loolu aussi am na moo tax parti yi bari moo tax mouvement citoyen yi bari yooyu yëpp du société civile société civile dafa war nekk ñoo xam ne ñu neutre lañu mais ils ne sont pas indifférents à ce qui se passe c'est-à-dire que yëngu-yëngutu politique yi seen xel mu ngi ci yitteel na leen ñu war ci sàmm seen àq ak seen yelleef. ñu bañ neutre boobu ngay wax euh, est-ce que tey jii mi ngi ci biir société civile bu bu Sénégal. lan ci neutre bi ngay junj léegi. neutre nag xam nga doomu aadama mënu neutre fu ñaari ginaar di xeex sax am na kenn koy faral mais neutre bi moo di bu ko fësal mais li nekk ci sa xol xëy na xam nga ko bu wotee jotee kooku ngay woteel mais neutralité absolue moom moo amul mais nag yow mën nga wax ne comme. ñii dañuy xeex wala dañuy xëccoo dara doo faral kii doo faral kële doo ko fësal mais bu ñu doon ñëw di des di sànnikaat am na xëy na peut-être koy sànnikaat mais doo ko wax alors li war société civile moo di mu bañ a fës bañ a def par parlo ci diw wala diw mais bu par parloo amee rek daal di société civile day daal di nekk leen loo xam ne dañ koy méngale ak parti wala ku bëgg ñu xëcc la nga ñëw ci nguur gi ñu jox la dara moo di transhumance bi parce que euh, foofu tam am na ñu fay jaaree pour dem euh, ci politique bi. Mhm. pour dem ci politique bi donc euh, lu mel noonu mooy tax société civile fi mu nekk nii nekk na loo xam ne dafa xaw jaxasoo parce que ku ci ne. boo tëbee rek da nga naan je suis de la société civile. mais ci wàllu woowu tey jii ak coow li am na ñu naan nañu publier liste bi xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo joxe woon euh, ci assises yi euh, président euh, Amadou Makhtar Mbow bu ñu ne kon dugal na ci kii di kon Lamine Diack président Diack bu ci dugalee ay kopparam ñu naan jóge na ci ger yooyu est-ce que du du ko gàkkal rawatina bi mu xamee ne xëy na da doon xeex ak yooyu yëpp est-ce que du du xajamal liggéey boobu ñu fi jotoon a ci assises yi. Mhm. te na. puissance financière boo xam ne bu ñëwee may ni du mel comme dix millions wala yooyu. dix mille euros waaw dix dix mille euros. muy six mille six six millions et cinq cent. la mel mën ne ko jox kuy fayu vingt cinq millions wala trente millions nga nekk fële. deux mille huit fekk na kii comment dirais-je là affaire Russie ñëwagul. Mhm. donc mënuñu taqal ñooñu. et puis kii ñëw di la may. mayu la pour nga def lii wala nga def la assise nationale dañ ne nationale. dañu def ñëpp këpp ko mën nga dugal ci sa loxo nga dugal ci sa loxo defuloo ko pour politique defuloo ko pour lal léegi nag nguur moo di que boo àndul ak moom toujours daf lay tam dëmm wala tam la lale et tout ça mais assises yi c'est différent ak euh, ce qui s'est passé en Russie Eh, boobu temps aussi fekk na amul. mais est-ce que jot nañu réfléchir tamit xool xëy na xool financement société civile bi nga xam ne xëy na boo lëggee façon coow yi wala dem fu nekk gauche droite da laaj ndimbal du ci am danañ mën a am koppar pour doxal ñoom tam seen activité. loolu mooy société civile kenn war ko financé cest di boo jógee ne société civile nga bokkul fenn war nga wut say moyen bopp moyen yi nag moo di que boo amee samedi jàmm wala ko am xaalis mu jox la ko bon loolu dafa dafa jafe difficile dafa jafe kii. dafa jafe seet. wala nga firndeel ko euh, président Mbow li mu wax moo di la nga xam ne am na bi mu koy joxe joxewu ko pour ñu xeex Massamba wala ñu xeex nguur gi wala jan assise nationale ñun ñëpp la woon ay nit ñoo jóge fële ñii indi seen xam-xam ñii indi seen alal ñuy liggéey loo xam ne dañ koy jëmale ci réew mi soppi li nga xam ne daf fi ne woon di dox te baaxul ñu bëgg ko soppar ñi def ko ci yoon boo xam ne ñëpp daañu ci jëriñu assise nationale newul woon pour opposition newul woon pour teg la preuve politique amu fa li ñu wax yëpp dañ ko natt rek ci ay borom xam-xam yoo xam ne doomu réew mi lañ kenn fayu leen kenn joxu leen dara ñoo ñëwal ci seen coobare bopp joxe seen xam-xam ñi joxe seen alal. mais ak différence montant yeeg yooyu yëpp est-ce que tam du ko ma ak. mon montant yi moo di que président Mbow def nañ liste ñëpp ñi nga xam ne dañu contribuer pour assise nationale dox. Mm-hmm. bi publier nañ ko. bu fekkee am na euh, ajo mën nañ ko génnewaat ñu woon ñi nga xam ne joxe nañ xaalis yëpp parce que loolu itam pour leeral la ak problème de transparence mhm. voilà moo taxoon ñu def loolu ba léegi mën nañ ko génne léegi nag pour Lamine ci boppam moom moo war a wax kan la jox xaalis mu leer naññi mais joxe naa xaalis noonu rek xam nga dafay lëndëmal wala mu gëlëmal nit ñi te du loo xam ne du du ci yoon mais moom jox na xaalis xam na ko mu jox xaalis na génne liste loolu moo di li nga xam ne mooy transparence mooy leer ba kenn du am sikki sàkk ne diw wala néew muy nekk loo xam ne nëbbu la. ñu lay gërëm monsieur Guèye Mandiaye Guèye euh, bokkoon kon PA yi nga doon indi sa xalaat ci benn ponk ci actualité fan yëpp euh, tey jii ñu doon waxtaanee mbiru société civile ak financement président Lamine Diack na nga wente ni kon wax na ay koppar yu mu ca joxe jaajëfal la sa teewaay ci xibaaru digg bëccëg bi. voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant ci li ngeen ma invité. di leen sant aussi di ñaan seen rajo bi yàlla na jëm kanam. Euh, Amine kon delloo gërëm ko daal di wéy ci wàllu xibaar yooyu daal di xool diggante Ndiassane wala Medina Baye euh, fu njëkk taxaw ak euh, gàmmu waat gi loole nag askan wa ña nga ca waajtaay ndaje mu am solo kon ñu bari it di ko daal di ñëw teewee si yenn saay sax ñu daal bawoo ca bitim réew Ndiassane nag ñoom rafetlu nañu na nga xamante taxaw di jéem a moderniser ko kon euh, dëkk ba waxtu woowu Medina Baye ñoom euh, président yi sàll ma ñu gisul te daal di jaar ci yeneen i béréb yi bokk na ci loo xamante ni daal ñaawlu nañ ko terewut nag euh, gàmmuwaat gi moom ña nga ca waaj wa bu baax Daouda Diouf mi ngi ci ligne bi Daouda ma lay nuyu di la ziar. Daouda kon yaa nga foofee ca Medina Baye ñoom it ci gàmmuwaat gi waxtu wi luñ ci mën a jàpp bu weesoo la ma junj sànq bëggoon nañ président ñëw fa te gisuñu ko. waaw euh, jërëjëf Adja Ngoné ni nga ko waxee rek noonu la ndaxte ñoom euh, dem ba léegi ñu ngi naxaru lu nu mel ne nañ nag euh, gis nañ ne Medina Baye am na dimension gàmmu international ndaxte fii ay réew yu mel ni Amérique yu mel ni ay Gambie Nigéria Bénin Ghana maanaam sous-région yëpp lañ fi ñëw donc war nañ ko mën a jox gëddëm boo xamante ne président bu demee yeneen kër kilifa diine yi wala tamit mën a ñëw fi nga xamante ne moom mooy na Baye ndaxte loolu moom mooy cërëm loolu nag ñoom naqaru nañ ko mais terewu leen ñoom euh, ñu ngi fa continuer di def euh, li nga xamante ne moom mooy euh, seen i gàmmoo ndaxte gàmmuwaat bi ci am solo mooy ay mbirum politique mbirum àdduna yëpp fan lañ koy teg dañuy waxtaane mbirum diina alxuraan tamit dañ ay ndaw yoo xamante ne ci la ñuy wàcc alxuraan ay ndaw yu xale yu tuuti tuuti yoo xamante ne euh, amuñ sa atu Cheikh Charifu ci la ñuy wàcc alxuraan def tamit ay jikaan noon la ko bàyyi ñett doon defe noonu la ko santaane noonu la ko ay doomam ñu def ak ay sisam ak ay euh, taalibeem ñu wax ne nag euh, bu dee loolu wéyee Medina Baye tamit Adja Ngoné njënd mi ak njaay mi tar na si lool ndaxte foire sax mën na ne am na fi ndaxte réew yooyu mu tudd sant na ñëpp nañ fi jënd di jaay fii ci diwaanu leneen lu mën a jàpp rek mooy jafe-jafe moom ci mbirum ndox courant nemmeeku wuñ ko fi su mu nekk daal moo xam ci bi tamit doon na climat bu neex loolu nag moom fas yéene am ba ci guddi gi tamit euh, fii ci Léona Niassène ak tamit ci Medina Baye baax Daouda bu ñu jógee Medina Baye dañuy daal di wutali kon euh, fële kon ca Ndiassane foofee nag euh, kii di njiitu réew mi moom ña nga ko fay xaar cité ba ñu taxaw it bëgg ko moderniser nañu ko defee ni fu demee ni Tivaouane fa fay it nimiku nañu ko ca njasaan Anne euh, loolee it ñu daal di koy euh, rafetlu euh, situation ba foofu Cheikh Anta Diop moo ñu koy toppal fan la fa toll rendez-vous it bu am solo la Cheikh mi ngi ci ligne bi Cheikh ma lay nuyu. Cheikh Anta kon mel ni euh, teewagul euh, dañuy daal di rek euh, wéy ci xibaar yi xëy na du ñàkk yeneen i édition mu dikkaat ci wàllug rétro bi kon Cheikh Anta Diop ma xool ba xam mel na ni kon mi ngi ci yoon wi Cheikh teewagul lañ ma xamal ñu daal di làmb kon rétro bi atum 2015 ci wàllug politique bari woon na kon ay yëngu-yëngu ak rebondissement rawatina ci wàllug yoon ay ñu yëngu ci wàllug politique ñoo xamante ni. teg nañu leen euh, loxo euh, procès Hissène Habré it bokk na ca lañu ca nimiku euh, loole nag fii ci dendub Afrique nee nañu guléet la kii di Yadi Talla di ci taxaw. yëngu-yëngu yi ci wàllu politique bay jur ay tëj kaso bëri na ci atum 2015 bii bu ci mujj rekk mooy mbirum Lamine Diack moo waral teg loxo Omar Sarr di coordonnateur PDS liñ koy tuumaal mooy génne ay xibaar yu firndewul toj boobu nag tax na ba libéraux yi mer ba futtu ñu fas yéene wane seeni naqar ak dem kalaame ji mbir mi ci CPI yi lëpp rek ngir ñu bàyyi seeni jiit dañu jàpp ne dañu jalgati constitution ñuy fàttali rek lii cour pénale internationale daf koy li fi am daf koy tere te cour panal international dafa wax ne autorité bu ko def ak koo mënti doon dinañu la fa topp Oumar Sarr jox nañu euh, mandat pour ñu saisir cour panal international pour que ñu ci bokk seen loxol bokk yépp ñu ñu ñu digaale ak ñoom te ñu dem répondre loolu la. at bii di jeex nekk na tamit lu jafe te metti ci biir PDS Karim Wade ci wàllu traque des biens supposés mal acquis ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars 2015 la dogal CREI yi daal di ko tëj lu toll ci juróom benni kaso teg ko amande lu toll ci 138 milliards teg ci tamit lépp lu mu amoon ci alal ñu fasko ko yéene nangu. bésu verdict procès Karim Wade bi nekkoon lu askan yi ñëpp di xaar capital bi daal di ne selew doo gis leneen lu dul ay takk der palais de justice bi wax waxi noppi fépp la ñu taxaw ci fajar. bi daan bi wadde ci biir salkat naxar ak tiis lañu ñu nemmeeku ci béréb bii feesoon dell ak ay militant PDS ki ci jiitu di maître Abdoulaye Wade bi ñu génnee salle bi yooxu yi ak am ñuy daanu ñu bari woon loolu ngir wone rek ñàkk ànd ak dogal bi CREI bi jël. maître Abdoulaye Wade ànd ak dal daal di woote këram ci fan résidence ngir def benn déclaration mu daal di jëlee ñëpp kaw rawatina ñi doon xaar rekk mu woote fitna li muy laaj mooy jege ñaaleem yi ñëpp ànd ak dal avocat yi doon layal Karim Wade daal di woote conférence de presse maître Abdoulaye Wade donte woote woon na dal wante terewul ne am na ay ndaw yu wone seeni naqar daal di taal ay pneu gàllankoor dem bi ak dikk bi ci biir ndakaaru am ñuñ ci jàpp bokk na ci Toussaint Manga di njiitu UJTL mu nekk ci neuvième mois am ci biir kaso bi ba tey jii wante fukki fan ak ñeent ci weeru janvier lañ ko fas yéene atte laata verdict procès Karim Wade bi lañu teg loxo kii di maître Amadou Sall mi génne woon ay kàddu ci benn mitin di laaj askan wi rek ñu daal di fippu bu naree tëj kii di Karim Wade yoon daal di ko ko toppee. jafe-jafe régime alternance bi njëkk am na ko ci atum 2015 bii. at bii di jeex senegal nekk na ku ñu ràññee ndax rek njëkk at njiitu réew càdd bu woon mësul am ci Afrique ñëpp bitim réew lañ leen doon yóbbu wante procès bi nekkul woon lu yomb donte amal nañ ko ñaar fukki fan ci weeru juillet atum 2015 ci bés bu njëkk procès bi fajar lañ daal di jëli kii di Hissène Habré indi ko ci tribunal bi takk der yi daal di jël jël bu njëkk ñëpp rawatina taskatu xibaar yi doon xaar rekk eh, fekkee biñ koy indi prévenu bi bañ comparaître takk der yi daal di ko forcer niñ ko defee woon ci buñ koy indi ci makaanu chambre africaine extraordinaire avocat yi tamit noonu bañ a teew ci baar bi ndax rek seeni gis-gis anam yu ñu doxalee procès bi teguwul ci yoon ci la CREI yi daal di jël dogal rek tànn yeneen avocat ngir rek ñu layal kii di seen abré muy li mu bañ donte taxaw nañ ko CREI yi daal di jël dogal ajandi àtte bi ci diiru ñeent fukki fan ak juróom ngir rek avocat yi mën a jàngat dossier bi bu baax juróom-ñaari fan ci weeru septembre ci la procès bi tàmbaliwaat ñu daal di ci déglu lu toll si juróom-ñeenti fukki seede ci diiru ñetti weer fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre la audition yi di jeex prévenu bi ci procès bi nanguwul indi benn tontu bi ko cour bi doon laaj kaddu yi mu mës a génnee rek mooy di ŋàññi lii di CREI yi. juróom-ñetti fan ci weeru février 2016 la avocat yi war layal si seeni client verdict bi nag ñu koy xaar ci ndetteelu weeru mai bii di ñëw. yëngu-yëngu yi ak jafe-jafe politico judiciaire bëri nañu ci atum 2015 2016 ñoo ngi koy séentu ndax climat politique bi dina ànd ak dal laaj baa ngi noonu. parti ki kuréel nag yëngu it ci 2015 bi parti démocratique sénégalais AFP naka noonu assemblée nationale 2015 bokkit ca la ko mandargal wisitu njiitu réew mi fii ci université Cheikh Anta Diop Cherif météo politique tàngoon lool ci Sénégal ci atum 2015 li ko waral bokk ci diggante bu ñagas wéy di dox ci nguur gi ak kuje gi kuje googu PDS incarné ko njiital PDS di Abdoulaye Wade yëngal dëkk bi laata muy dellu ca Versailles ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi mu doon dalal ay jege ñaaleem Abdoulaye Wade song bu baax Macky Sall ak ak njabootam tam leen du kàddu yu ñu bari naqarlu ci Sénégal. ci Macky dina may <laughs> laata loolu fanweeri fan ak benn ci weeru janvier ginnaaw bi benn manifestation bu parti démocratique sénégalais doon amal ca place de l'Obélisque Abdoulaye Wade ne moom force de marches ci la jël otoom daldi di ci waa police. ginnaaw jàmmaarloo boobu nag Abdoulaye wadd jànkonteeg beneen jafe-jafe ci biir parti démocratique sénégalais. di benn fronde boo xamante ni Modou Diagne Fada moo ko jiitee ñuy wooye seen bopp ay réformateur di sàkku rek ñu xoolaat parti bi doxalin wi te tamit amal congrès muy lu Abdoulaye Wade bëggul woon a dégg xërëwul mu woo réformateur yooyu ca këram ngir ñu amal waxtaan waxtaan woowu ca pëcc xoo la mujj crise boobu ci biir parti démocratique sénégalais di law ba ca assemblée nationale ndax bi ñu waajal renouvellement bi waa parti démocratique sénégalais dañoo jiitaloon Aïda Mbodj ngir mu jël place su Modou Diagne Fada Fada daal di lànk terewul Aïda Mbodj am njàppandalu lu toll ci juróom-benni parti ci kujje gi di PDS bokk gis-gis réew mi UCS FSD/BJ ak tamit AJ/PADS ñaari wàllu yooyu nag bureau bu assemblée nationale moo leen mujj a àtte Moustapha Niass invoqué article 22 daal di jox dëgg kii di moo du Diagne Fada jàpp ni buñ sukkandiku ci boobee article du Omar Sarr moo waroon a déposer liste bu Aïda Mbodj war a jiite. opposition bi daal di lànk jàpp ni liy jalgati la ci règlement intérieur bu assemblée nationale ba tax ñu daal di takk seen ndigg na dañuy bloqué doxalinu boobee assemblée nationale. ñu gis ko ci commission ya nga xamante ni ay député ñëw nañ fa ak i sifflé kàddu yu ñagas dox seen diggante ba yenn saa yi sax ñu songoo. terewul commission de discipline bu parti démocratique sénégalais moom daal di dàq Modou Diagne Fada ne dafa lëkkaloo ak seen noon wante terewul assamble nationale bis bi ñu tëj marathon budgétaire ay kàddu yu ñagas ñaaw lool jóge ci ay député ñu saagante fa ba tax Moustapha Niass jël kàddu gi di delloo si seen xel moomee Moustapha Niass nga xamante ni ci weeru janvier bi mu doon amal cérémonie présentation de vœux bu cadre AFP yi saaga woon na fa Malick Gakou ak i ñoñam ñi nga xamante ne doon sàkku ci moom rekk mu daal di wax fu mu bëgg a jëme parti bi ëllëg 2017 laa ko fekkee man képp AFP bu présenté candidat bi du la dimbale du ma la soutenir du ma la financé danga ma tooñ ay weer tegu ca Malick ku génn AFP sos partem bu naan grand parti am na beneen parti bu juddu ci atum 2015 it muy UNP bu ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moom it jógee parti démocratique sénégalais wax 2015 wax visite bi président Macky Sall doon amal ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru moo doon njiitu réew bu njëkk mu fa teg tànkam campus boo xamante ni am na ay étudiants yoo ko fa doon xaar jëli xeer joor ko ci cortège am ñu jàpp ci étudiants tëj leen kaso laata ñu leen di baal. am na fiit ab remaniement di ay coppite yu nemmeeku ci yenn ministère cabinet président Macky Sall direction Sénélec nga xamante ni Pape Dieng dem na jox place am Makhtar Cissé yeneen cëpp kayit nemmeeku nan ko ca police. ANACIM mu fay jox palaasam commissaire Omar Mal wàllu transhumance yónne yéen doon yónnee soldats ya ca Yémen ak it débat ci wàññi te mandat présidentiel bokk na ci li marqué atum 2015 ci Sénégal. ci wàllu yoon it 2015 mënees nañ ca jàpp libération Aïda Diong waaye condamnation it kii di Tahibou Ndiaye gërëm leen Adiatala Cherif Dia ci rétro politique boobu yegg si ci yéen i kaay li ñu xëy ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Lamine Diack ak waa Russie doom yaak waa Turquie famille Diack di waa Ndiagen bàkkati nañu Diack observateur nañu dernière minute ne ginnaaw bi ñu fi feeñalee Lamine Diack ak i njubla nga ki tappale mu fi def doom ya di Pape ñoom it des ñu gannaaw ci mbir mi waa l'observateur nañu ci RFM di rajo Futur Média la ñu nangoo xibaar bi waa RFM nangoo ko ci journalu tubaab bii ñu naan l'équipe ne ci atum 2012 jàpp 2013 ñaari doomi Lamine Diack yooyee mu di Pape Massata Diack ak Khalil Diack dañu doon jéem lu tollu ci ñetti téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñaar la ko doon laaj ci ngir nëbbal ko coowal dopage bu feeñ ci ay testam doomi Lamine Diack yooyee mu di Pape Massata Diack ak jàkk Khalil Diack l'observateur nañu dañu doon jéem a njublang athlète boobu ak fédération athlétisme bu bu Turquie bu dee seen bàyyi nag mu di président Lamine Diack l'observateur nañu li ñu ko fi doon waxal di xaalis bu mu kaajéree ci bi fii ci Sénégal am na lenn lu co jot a feeñ mu di ay mbóot di ay révélation ndax ñi doon organisé assise nationale yi Lamine Diack ba leen juróom-ñeenti millions ak genn wàll Amadou Mokhtar Mbow moo ko wax nee na xaalis boobee ci loxoy professeur Penda Mbaw ca la jaar li ci ñuul rek l'observateur nañu moo di Penda Mbaw mi Lamine Diack jox xaalis bi ak Amadou Mokhtar Mbow moomu ñu wax ci xaalis nu mu toll grand place nañu Amadou Mokhtar Mbow wax na ci financement assise nationale ba xamle ca xaalis bu ca Lamine Diack joxe journal bi di laaj ndax waxi Amadou Mokhtar Mbow yooyee du ay ay lay yéwén maanaam ay aveu Walfadjri ne ko bu sax ubbil journal bi ku jëg politique gi Lamine Diack doon wax naan daf leen a jàppale journal bi nañu ñi doon def ay assise nationale ci réew mi ca la bokk ki jiite woon assise nationale mu di Amadou Mokhtar Mbow moo ko na Lamine Diack jox na la jaar direct ay fa nañu lu tëë xam daa yàggul yéene kanam xëy weere ci xët mu njëkk direct info moo di Pape Massata Diack ak baayam Lamine Diack journal bi nañu seeni mbir mi ngi gën di tar ci seen boor ne bu weesoo forum des justiciables waa OCD yi saisir nañu OFNAC ngir ñu wax ci mbirum Lamine Diack ku xëy na Diack yam ci yéene kaay yi ñu gis nañu Idrissa Seck rayati na Macky Sall ba mu dee laas nañu lu aju ci plan Sénégal émergent acte 3 décentralisation réew mi tolluwaay gi Idrissa Seck démb la na xeme dangaar la sotti ko bàyyi di Idrissa Seck nañu Macky Sall émergence la ñu déggoon waaye ak ndóol la fi indi 93 francs di ñaar fukki dërëm yu manqué juróom-ñaari 15 loolee la nguurug Sénégal di jox doomi Thiès at mu nekk maanaam 93 francs par an par doomu Thiès ci le quotidien njiital parti réew mi nañu fa njiit réew mi di Macky Sall delloo na réew mi gannaaw ba mu mel ne ab sër ne yokkute la fi woote woon ndóol la fi indi yaakaar ji mu fi waxoon na Macky Sall ak ndóol ak jaaxle la fi indi li mi ngi condamné ya ñu jàppoon ca diwaanu Kaolack ñu doon tàkkub sëy ci seen biir te ñu leen doon atte yéen kaay bi nañu démb lañu leen doon atte ci tribunal bu Kaolack yoon bàyyi na leen ñu dem ndax nee na liñ leen di toppee amu ci benn firnde enquête dina kaay moom xëy topp la am démb ca kasu bu rëbës mu di juróom benn nit yu fa bëggoon a rëcc yéen a kaay bi nañu juróom benn lañu seeni plan pexe lañu teg ngir rëcc juróom ya jàpp nañu leen benn waaye bombardier la bombardier le roi des arènes borom guddi guddi mbuur yéenekaay bi xëy di ñu laaj moom bombardier moomee ni muy waxtaane ak Mansour Aw di ko waxtaane ak Luc Nicolaï ndax du moom bombardier dafa bëgg a génne Aziz Ndiaye ci ay mbiram Luc Nicolaï moom sunu làmb nañu mag a cay mbiram mu di mbapat happy tour bi journal bi nañu ginnaaw diwaanu mbuur ndakaaru moo aaye juróom-ñaari fan ci weeru février ca Demba Diop journal bi tegal ñu ci ne fukki million la Luc Nicolaï teg ci taabal ji ngir daan jël gërëm ko Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen yéen ñu ñu àndaloon benn waxtu ba léegi rédaction bi dana dellu si ngoon 19h30 20h fekk boobu mën ngeen ànd ak Kebs Thiam pour xam programme bi naka lay demee ci seen télévision Futurs Médias Kebs maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna Ngoné cadeau fin d'année bi ma diggoon rek. Ah. laa bëgg nga waxaat ko ci àdduna bi askan bi ñëpp. <laughs> yaa ngi may njëkkantu de. <laughs> léegi wax ma lu ma la dig comme xamangu ma ko. non cadeau fin d'année rek nga wax hmm. ñaar xam na waaye ñett xamul. Ah, waaw loolu duñu boole. Ah. am benn problème yaay sama waay. jeex na. <laughs> léegi léegi mooy ñëw indil leen kon euh, cadeau bi ci télévision Futurs média ni ngeen fas yéene yendoo ak euh, programme bi dellu di leen ñaanal euh, kon bëccëgu jàmm ak télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf ca kanam tuuti.